retient déjà l'agriculture comme levier pour des emplois décents. Au Conseil des ministres, il a souhaité plus d'appui pour le monde rural et le développement de l'agro-industrie. Ce conseil présidentiel a été convoqué après les émeutes en lien avec l'affaire Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, qui invite justement les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales pour opérer un véritable changement. Grève générale de 48 heures à partir de ce matin, décrétée par le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal. pour dénoncer les dysfonctionnements euh, dans le secteur. Enfin, un plan directeur d'assainissement à Touba, plusieurs actions dans la cité religieuse pour l'amélioration du cadre de vie. Et le développement de tous ces Issonia. Bonjour à tous. Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec le chef de l'État qui préside ce matin un conseil présidentiel sur le financement du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. La rencontre se déroule au CICAD en présence des membres du gouvernement, des responsables des structures concernées des représentants des jeunes. L'employabilité des jeunes concerne donc tous les départements euh, a été euh, menée dans les 16 communes du département à l'initiative de responsables politiques de la mouvance présidentielle. C'est pour formuler et des recommandations. Les résultats seront ainsi euh, donnés au chef de l'État pour les besoins de cette rencontre prévue ce matin. Saliou Samb, du conseil départemental de Mbour, explique cette initiative au micro de Moustapha Sall. Euh, l'employabilité des jeunes dans de Mbour. où les experts nous ont proposé les résultats qu'on attendait. On avait un objectif de 4000 enquêtes euh, pour euh, toutes les 16, euh, toutes communes. Mais euh, avec la pugnacité des jeunes, euh, leur persévérance, leur courage, leur témérité, ils, sont arrivés finalement à nous donner plus de 8000 je veux dire, questions par rapport, au, au rapport à, à, à des jeunes. Et donc nous, en sommes, sommes vraiment satisfaits. nous voulons quand même faire cette restitution-là euh, avec les diagrammes qu'il euh, pour le donner à son, département, mais aussi le remettre à son excellence le président Macky de Mbour soit un modèle pour le, euh, pour tout le pays. Euh, nous avons posé certaines questions aux jeunes pour savoir qu'est-ce que vous attendez vraiment euh, de, ce, de ce programme annoncé par le président Macky Sall. plus de des jeunes pensent que qu'ils ont besoin d'être et, et d'être guidé. Euh, il y a une partie vers la formation, une partie aussi vers vraiment euh, de leur, essayer de leur trouver du travail. Peu parlent de financement et ça, c'est ça qui est finalement paradoxal. C'est pas forcément le financement direct qu'ils veulent. Ils veulent qu'on les, qu qu les, forme d'abord et, et, puis, puis qu'on arrive à les diriger vers les, les métiers qui existent comme l'agriculture, euh, la pêche, l'industrie. Il y a aussi, aussi l'auto-emploi qui est... Donc voilà, ça veut dire les jeunes ont compris que, euh, que son expérience présidente a, a besoin d'avoir des outils de décision qui le permettra cette fois-ci, avec les, toutes les institutions qui sont déjà mises en place et qui s'occupent des jeunes, cette fois-ci que, que, que, que, la cible finale euh, qui sont les jeunes puisse en être, euh, je veux dire, vraiment à, à, atteinte, mais en même temps d'une manière, je veux dire, transversale. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une deuxième euh, étape qui servira d'aller vers les entreprises. Le chef de l'État a convoqué ce conseil présidentiel à la suite eh, des émeutes meurtrières qui ont secoué le pays en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Le président Macky Sall a procédé à une réorientation budgétaire pour dégager 450 milliards pour l'insertion euh, des jeunes. Le chef de l'État qui en conseil des ministres euh, donc a le gouvernement à davantage appuyer euh, le monde rural et à procéder développement de l'agro-industrie. Donc le chef de l'État a largement évoqué la question de l'agriculture hier de la rencontre sur la préparation de la campagne agricole de la vocation agricole du Sénégal. Le président Macky Sall se félicite du déroulement roulement satisfaisant de la campagne agricole 2020-2021, plus particulièrement celle arachidière dont la commercialisation vient d'être euh, clôturée. Le président Macky Sall a rappelé sa décision de porter encore une fois le financement de la campagne à 60 milliards de francs CFA pour accompagner les producteurs en matériel intrant agricole, mais également renforcer l'ancrage d'une économie rurale euh, durable et créatrice de richesses d'emplois euh, Un conseil présidentiel matin, je vous le disais, en lien euh, donc euh, avec l'affaire Ousmane Sonko et les émeutes enregistrées sur l'étendue du euh, territoire. Le chef de l'État a ainsi entendu l'appel de la jeunesse. Il convoque cette rencontre ce matin. Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, se prononce justement concernant la situation des jeunes. Il les invite plutôt à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à exiger la délivrance de leur carte d'électeur afin de de conquérir le Parlement en avant de parachever le combat en 2024 pour atteindre le véritable changement. Le leader du parti euh, PASTEF, Ousmane Sonko, s'est également prononcé sur les attaques du gouvernement qui entend instituer une commission d'enquête sur les événements de mars. Le leader de PASTEF clame son innocence et annonce un contre-mémorandum indique qu'en dehors de la volonté divine, nul ne peut l'empêcher de participer à la présidentielle. Le leader du parti PASTEF, députés à l'Assemblée nationale annonce d'autres révélations concernant des scandales non encore élucidés. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue sous peu. Le leader du parti PASTEF a accordé hier donc un grand entretien euh, sur Jotna TV. Ce jeudi et vendredi 23 avril, une grève de 48 heures à l'appel du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du euh, Sénégal. Donc euh, une grève pour dénoncer les dysfonctionnements dans le secteur. Selon le syndicat, les statistiques et données agricoles seront euh, bloquées sur l'étendue du territoire. Le secrétaire général du syndicat alerte le monde rural. Toutes les notifications de semences données par le ministère aux opérateurs ne seront pas valables. Samba Gaye, secrétaire général du syndicat, s'explique au micro de Mamadou Camara. Nous voulons dénoncer un fait grave qui se passe au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, dirigé par le professeur Moussa Baldé, en connivence avec son directeur de l'agriculture, qui concerne à donner des notifications de semence certifiées à des opérateurs privés stockeurs de semence qui doivent le mettre à la disposition des producteurs, alors que les bulletins disponible parce que les agents sont en grève. Et tant qu'il n'y a pas de bulletin d'analyse certifié, la législation semencière interdit de mettre à la disposition des producteurs ces semences certifiées. Et ça, c'est au niveau national et comme au niveau international parce que le Sénégal a ratifié dans le cadre de la CEDEAO pour respecter les normes de production et de commercialisation des semences certifiées. Donc, c'est ce qui se passe dans notre ministère. Ce que cela peut apporter, c'est très grave privés stockeurs qui peuvent euh, délivrer n'importe quoi, soi-disant des semences certifiées, alors que ce ne sont pas des semences certifiées. Ça parce que les producteurs qui croient qu'ils ont des semences certifiées, qui ont des rendements meilleurs dans leur production agricole, ne l'auront pas parce qu'il n'y a aucun service qui l'a constaté. Ça peut être un fait grave parce que euh, la production sur laquelle nous attendons pour assurer la souveraineté alimentaire du Sénégal, si on ne garantit pas aux producteurs que ce sont des semences qu'il veut. Cela que c'est une campagne ouverte à tout manquement et cela est à tous les Sénégalais. Je dis à tous les Sénégalais, à la population euh, au niveau général parce que l'agriculture couvre 70% de la population euh, euh au national. Euh, par rapport à, à l'article 46 de la CEDEAO, il que la production et la commercialisation des semences certifiées doit obéir à communautaire. Si on parle de normes communautaires, cela englobe tous les pays de la CEDEAO qui doivent euh, euh, euh, respecter ces normes. Et le Sénégal ne peut pas déroger à ces normes en donnant des notifications à des opérateurs privés stockeurs qui n'ont pas encore reçu de bulletin d'analyse de semences certifiées. Des propos recueillis par Mamadou Camara, colère des populations de Mewan à Tivaouane, elles ne veulent plus euh, donc euh, de la gestion de l'eau par la société Aquatec. Le mouvement Mewan Jotna appelle les populations au boycott du paiement des factures. Babacar Sow. Le collectif Mewan Jotna est en colère contre la présence de l'Aquatec. En assemblée générale, les membres de cette structure ont profité de l'occasion pour exprimer leur indignation. Un collectif qui dit niet l'insu des populations qui ont assuré la gestion de l'eau depuis plus d'une vingtaine d'années, des populations qui disent-elles veulent épargner Mewan de la gestion désastreuse de l'eau par la société Aquatec qui partout où elle est passée a laissé des casseroles Khalifa Diop porte-parole du collectif Mewan Jotna. À notre grande surprise Aquatec qui est une société étrangère de recherche de profits et de capitaux est venue nous déposséder ce joyau-là. Nous crions notre ras le et que nous disons non à cette occupation illégale. La population n'a pas été avertie à temps. Là où l'Aquatec à passer, il n'a laissé là-bas Nous voulons épargner Mewan de cette situation-là, conscientiser la population à prendre toutes leurs responsabilités. Mewan, une localité qui n'a jamais connu de problème de gestion de l'eau, mais une grosse crainte demeure cependant avec la présence de l'Aquatec qui commence déjà à leur poser d'énormes problèmes avec la radiation des membres du comité de gestion, ce qu'ils n'accepteront pas selon Khalifa Diop qui appelle les populations à boycotter les factures. Mewan n'a jamais eu un problème d'eau. Aquatec commence à nous poser des problèmes le comité qui était en place a été radié de ses fonctions nous n'accepterons pas ça toute la jeunesse de Meouane s'est regroupée vous avez vu derrière vous il y a les femmes et les jeunes qui sont là et le seul mot d'ordre aujourd'hui qui sévit à Meouane c'est Aquatech dégage nous ne voulons pas d'Aquatech dans ce village ils nous ont donné des factures la population a décidé de ne pas payer ces factures là fàttali Vawan Babacar Sow depuis Mewan pour Sud FM. assainissement à Touba en plan directeur prend désormais en compte la gestion des eaux usées et des eaux pluviales d'ici 2030 plusieurs actions sont prévues pour améliorer le cadre de vie dans la cité religieuse Totissé. Des solutions définitives tardent à être prises pour résoudre les problèmes liés à l'assainissement dans la ville de Touba. L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées a toujours préoccupé la population et les autorités. Mais l'espoir est permis selon le directeur général de l'ONAS qui, après une visite effectuée au niveau des différents points bas, a coordonné l'élaboration du plan directeur d'assainissement de Touba. Un outil important selon

Au cours de la rencontre de partage du plan directeur d'assainissement, les responsables des différentes structures concernées ont décidé de s'y mettre. Le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, qui a présidé la réunion, a appelé à une appropriation du PDA. Quant au représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Ousmane Mbacké, il a fait part de la volonté de Serigne Mountakha de mettre sur pied un cadre de concertation, de suivi et d'évaluation. Toutissé Mbacké, Sud FM. Euh, tout ici, euh, parlons de l'actualité hors de nos frontières avec euh, la pandémie du coronavirus. L'Inde a annoncé aujourd'hui avoir recensé près de 315 000 nouveaux cas de Covid-19 en seulement 24 heures, un record mondial, alors que les hôpitaux de New Delhi font face à une pénurie d'oxygène. Cette deuxième vague épidémique imputée à une double mutation du virus et au maintien de de masse ont favorisé les contaminations. Le ministère de la Santé a donc résultats euh, ce jeudi de 314 835 nouvelles contaminations, un bilan quotidien qu'aucun pays au monde n'avait jusqu'alors enregistré, ce qui porte à 15,9 millions le nombre total de cas officiellement le plus touché par la pandémie. Au total, 2074 décès ont également été recensés sur 24 heures. Le bilan officiel de l'épidémie est de 185 000 morts depuis l'apparition euh, des euh, premiers cas en En Inde, pendant ce temps, le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a confirmé euh, donc des doses suspectes de son vaccin anti-Covid saisi au Mexique et en Pologne et vendu jusqu'à 1000 dollars l'unité était des contrefaçons Maria. Merci à vous Adjaratou dans la seconde édition de ce bloc d'infos. juróom-ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Dakar lëkkaloog suñuy diwaan salaamaaleykum Hadj Maodo. aleykum salaam soxna Maria. tey ci alxames bi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril 2021 ñu tàmbali xibaar yeeg conseil présidentiel boobee di am jom ñaajo akay ah, moom lañ koy doore tey jii ci alxames ji asalaamaaleykum bokk yi ca centre bale nga xam ne moom la ñu duppee Abdou Diouf ca jam ñaajo wàllu xëyum ndaw ñi lañ fay waxtaane ni ko njiit réew mi waxe woon itam loolu daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi mbuur moom am na loo xam ne jot nañ ko tënk daal ay recommandation yoo xam ne ci lu tolloog fukk ak juróom-benn ci ay commune foofee loolu jëm ci wàllu fànn boobule ci conseil des ministres bi démb njiit réew mi rotal na euh, ba nga am na nee na a dem bindu ji rek itam ngir coppeeku yi bëgg ci réew mi loolu daal am ñu dem ci liste électorale yi daañu ci dikkale gi ci biir xabaar yi loolu tam mu ne dees na leen ci daal ñaax daañu ci toftal itam syndicat bi nga xam ci wàllu mbay mi ay technicien lañ ñoom dañoo nekk ci wàllu geraw toftal ci yeneen xabaar jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ak ngeen ànd ak noonu njiitu réew mi di président Macky Sall tey jii ci alxames ji dina jiite benn euh, ndaje am ndaje moom li ñu ko duppe mooy conseil présidentiel boo xam ne bi euh, dafa jëm rek ci lépp loo xam ne dañuy génne ay tëralin yooyu dafa jëm ci wàllu ndaw ñi seenum xëy ngir ñu am lool dañ ci mën a tàbbal seeni yoxo fexe it ba euh, koom mi ci wàllu fànn boobu jëm ci ndaw ñu nekkit loo xam ne lii lu na tax lay doon ba tax na loole ñu ngi koy amal tey jii ci alxames ji dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weer yi nga xam ne ci la ñu ne ci bërëb bële nga xam ne moo nekk ca jam te ñu duppee ko njiitu réew ma fi nekkoon di président Abdou Diouf loolee gouvernement bi ak itam lenn ci ay jumtukaay ak itam ay nit yooyu seen i bànqaas yitteel na leen wàllu ndaw ñi ñoom daañu fekke ndaje moomu du ñàkk ci bëccëg bi ñu daal di ci delsiyaat ci wàllu xëy moomu sax ak ndaw ñi ba léegi ci la ñuy daal di desandi euh, euh, diwaan ba la boo booli mbuur am na fa lool jot nañ ko euh, waxtaanee a ëpp ca ndaw ña man caa am lool des na ca tàbbal seen yoxo te muy liggéey boo xam ne bi itam euh, ak juróom-benn yi nga xam ne ñoo tënk mbuur ci boppam mu fasantu ko ci gox yooyee ba tax na ñi nga xam ñoo fa yëngu itam ci wàllu politique ànd itam ak ki nga xam ne moo di njiit mi nee ñu lu mu gàtt-gàtt lu tolloog juróom-ñetti junniy tomb yooyu jot nañ ko waxtaanee laajee ko itam jëmale ko ci ndaw ñi loolee am na ay tontu yooyu itam ba gis ne ñoom ci seen bopp ku leen ci daal uppi seen ubbi seen bopp leeral leen ko Saliwu Samb kenn la ci kook moo jiite lenn ci bànqaas yooyee euh, féeteeg boori Mbuur waxtaan ci ak Moustapha Sall. journée de restitution boo xam ne dañoo commencé woon euh, autorités yi nekk fii yëpp dans le département. Euh, déglu son excellence président Macky Sall mu ootee ko xaar duñ ko xaar ñu jël ay xale yi organiser leen avec des experts yoo xam ne jógee ñu xarañ ñu ñëw accompagner ñu pour ñu def ay enquêtes sur le terrain pour mën a jox son excellence le président Macky et le préfet du département de Mbour ay outils yoo xam ne dina xam ne ah xale yi de ñoom ñii sox ñii ñoo soxla formation ñii ñoo amul xëy ñii ñoo soxla ñoo am ñoo diplôme te amuñu liggéey liggéey bi peut-être que dañu war a yóbbaat ci beneen domaine ils sont prêts à le faire bu xam daal xale yi ñoom jox leen kàddu gi tuddee ko nag lu ñu naan le grand déglu le grand déglu boobu mooy xale yi ba pare doo ko jëf ça veut la parole aux euh, vraiment tey objectif bu ñu amoon mooy au moins dans le département commune bu nekk gis xale yi fa nekk ñu demal ñu sur le terrain ñu fexe ba nga xam ne dinañ am lu ñu naan 4000 réponses et on s'est retrouvé avec loolu yëpp ndax xale yi ñoo ko ñoo ko liggéey seen xarañte ak seen yaakaar bu ñu am ci programme bi programme bi nag xale yi dégg nañ lu ñu wax lan la ñuy xaar mooy suivi dañoo bëgg nag programme bi am suivi te incha allah euh, autorités yi nekk fi dans le département ñoom ñëpp engagé wu nañ ne dinañ dinañ dinañ xar seen tànk tubéy taxaw ko ba nga xam ne lii mu am mujjante mujjante bi nag mooy fexe xale yi am xëy parce que loolu rek mooy objectif bi la xale yi daal ah, ah, ah, li ñu bëgg mooy ñu teg leen ci yoon teg ci yoon mooy lan former leen parce que tamit ñëpp ñu nekk ci ay bureau donc il faut ñu dañoo soxla ay ay formation ba pare doo leen accompagner nag pour ñu mun a si ñii war a créer seen entreprise ñii war a dem defin seen beneen liggéey wala mu ñu dugg ci ay yenn usines yi mais formation boobu lañ lañ soxla ñeneen ñi nag dañoo wax ne dañ seen projet yi pare nañ jàng nañ ba pare loolu lañ soxla mooy un capital capital boo xam ne mais sur un plan nag lu ñu business plan bu leer pas jox ba joxe xaalis boo xam ne koy dem yóbbu feneen déedéet pour que activité bi nga nekk lu ñu naan un auto employeur loolu la ñu soxla ñoom par rapport à cela et donc ñun dinañ ko def loolu yëpp dinañ ko pourcentage bi am nañ ko dinañ ko jox kii de droit euh, mooy le préfet du département de Mbour euh, après dem jox ko tam son excellence le président Macky pour que suñu xamee duggee Mbour ñu xam ne xale yi de lii la laaj lii la bëgg pour que affaire bi gën a am efficacité ci programme bi ñu war a andi fii ci biir si biir suñu gox goxaat yi li aju tamit ci conseil des ministres bi nga xam ne amoon na lañu ko démb ci àllarba ji dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk njiit réew di président Macky moo jiite woon ndaje moomee ni nga xam ne noonu lañ koy aada woo di amale fii ci palais bi nga xam ne moo nekk fii ci biir Ndakaaru Macky gannaaw ca njëlbeen ga gannaaw yëkkati na ay kaddu nuyoo jëmale ko itam ci kii nga xam ne moo di maréchal bi nekkoon ca Tchad di président di président Idriss Déby gannaaw ba nga Idriss Déby itno jébbal ay ak ko nag euh, jébbal ko nag képp ku mën doon koo xam ne kii yaa ngi fekk baax ci réew moomee nga ne moo di Tchad euh, ci demuk kii nga xam ne moo di Idriss Déby Itno euh, ne daal nag mbir la moo xam ne itam mu tiis la waa ñi nga xam ne ñoo dëkk Tchad yépp mi ngi leen di jaale mbir moomule li jëm itam ci yeneen i fànn yooyu dafa yiteel wàllu campagne bi jëm ci wàllu mbay mi at mi jàpp diwén ci nawet bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal njiit réew mi gën a feddaliyaat doole la itam wàllu mbay mi ci biir Sénégal waxit ne daal itam am am na ségéré goo xam ne gii euh, loolu am na ko ak mbégte ci campagne bi ni nga xamee ne noonu la tëddee diggante 2020 ak 21 mooy bii nga xam ne moom la ñu génn mu ne nag rawatina gerte gi li nga xam ne jot nañ ko amandi ak njënd meeg njaay jaar na ci yoon ba ñu ko ràpp tëj te amul benn jafe-jafe njiitu réew ci li nga xam ne ba tey it dafa yiteel ay yoo xam ne itam jëmale na ko rek ci koppar yi nga xam ne war naa mën a génn ñu daal koy gën a suqaliyaate eh, eh, joyantiyaat itam wàllu campagne 2021 2022 luy tolloog juróom benn fukki milliards suñu ay koppar yoo xam ne yi des koo def ngir ànd ci jàppale ko itam producteurs yi baykat yi su ko defee looloo tam lépp nekk loo xam ne lii lu gaaw a teew lay doon balaa bata sibbi ñu daal di fagaru ndax xoddeeku ñaare bala nga lakkale euh, loolu rot na fa ci biir conseil bi itam am na ci ay ay ay ay charte yoo xam ne itam jot na ko wax jëmale ko ci ñi nga xamee ne ci dogalu boppam ak coobare boppam ci la ko defee am ci ñooñ des leen a euh, feddliyaat takkal leen ay ndombay tànk am ci ñooñ itam ak ak ak toxu dafa am ci seen i béréb yi nga xam ne ci la ñu newoon ba jëmm ji nga xam ne moom la duppee Seydou Bokar Yàgg nga xam ne nee ñu mi ngi nekkoon contrôle général ci police wa la moom la ñu samp léegi nga xam ne moo di Ousmane Sy euh, kii nga xam ne tam moo di euh, ingénieur la woon euh, nekk tamit ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu li ñu duppee aviation civile moom la ñu samp léegi mu nekk directeur général bu agence nationale bu jëm ci wàllu aviation civile boobee ak ci dem ci wàllu météo ak yi nga xam ne moo di ANACIM maanaam daal mu wuutu fa itam kii nga xam ne moo di Magueye Marème Ndaw euh, kii nga xam ne moom moo di loolu nag ci conseil des ministres bi la am démb ci ay dogal yooyu njiit réew ci jëmmi boppam ak coobare boppam ci la ko jëlee euh, kii di Alpha Bayla Guèye moom wax nañu nag euh, cadre juriste la ci wàllu finance ak yu demee noonu moom la ñu samp mu nekk directeur bu nekk office des forages ruraux mu noonu la ñu duppee forage OFOR nekk ci wàllu ndox mi nekk ci wàllu àll bi mu wutu fa nag kii nga xam ni moo di Seyni Ndaw ci béréb boobule ak yi nga xam ne itam moo di Ndiaga Diop mu di commissaire boo xam ne police mu nekk directeur bu nekk groupement mobile bu jëm ci wàllu intervention yi nga xam ne moo jëm rek wut fayit ki nga xam ne moom moo di Amadou Hamadi euh, euh, Lam euh, ci xabaar yi ba léegi gannaaw ba nga xamee ne fii nu toll nii juróom-ñaari waxtu dem na ba feggoog lu mu gàtt gàtt luy toll ak juróom-ñetti minit ci wàllu génn kii di Ousmane Sonko kaddu yooyu jot na ko rotal moom jëmale ko rek ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal nee na nag moom alakuli ali loolee dana ci daal di bokk it te kenn dara mënu koo nee na mi ngi ñaax itam ñi nga xam ne itam ñoo di ndaw ñi nga xam ne des leen di ay dig yoo xam ne mën naa am loole ay gént lay doon nu fexe ba bindu ji ci liste électorale yi bu ñu ko tàmbalee ñoom ñëpp daal mbooloo mu bari su ko defee coppeeku yu nu bëgg ci réew mi changement yooyu daa dee am ñu déglu ko moom kooku di Ousmane Sonko. yow ndaw mi laay waxal d'abord. na ngeen dem bindu waaye gannaaw bindu bi na ngeen topp mbir mi topp mbir mi topp mbir mi ba ñu jox leen seen carte. bu ñu demee ba dëgmal élection ñu bañ a joxe carte yi ñun ñëpp dinañ jóg taxaw ne élection du fi am tant que joxewuñu carte yi parce que c'est un droit constitutionnel. bésu vote bi jot ngeen génn te su ma nee bëtu vote bi du rek 2024 de ñu ngi dëgmal élection locale boo buggee def résultat 2024 dafay commencé ci nga def résultat ci élection locale yi ñu commencé ci loolu bu ñu jógee ci loolu 2022 ñu dem ci élection législative fexe ba jël assemblée nationale bi wax ma leen dugal groupe parlementaire de loolu moom mooy objectif minimal bi mais fexe ba jël assemblée nationale te ñi ñaa ngi naan 2024 mais dama bëgg jeunes xam ni bu ñu jëlee assemblée nationale 2022 mooy 2024 formalité la mooy moom gouvernetul Sénégal parce que dinañu voté loi yi ñu bëgg a voté pour réew mi kon la jeunesse dama bëgg ngeen xam ni vous avee les cartes en mais le changement c'est vous et vous seul su ngeen bëggee changement 65 pour cent de la population yéen la les jeunes donc ça c'est une majorité écrasante su ngeen bëggoon changement changement am kon nañ ci góor góorlu la ca des nag mooy xeex yi ñu war a xeex pour que ñu def élection yi à date d' ñu pour Macky Sall yóbbu élection locale yi en mille 2022 parce que bu ko yóbbee 2022 2022 élection législative du am da koy dàq parce que loolu la ragal li mu ragal mooy assemblée nationale tombe ci loxo opposition Macky Sall nag moomul réew mi moomul nit ñi du moom mooy décider kañ la ñuy élection ak lañu dafa am calendrier boo xam ne constitution bi moo ko fixé dafa am calendrier boo xam ne code électoral moo ko fixé moom mënul am sañ-sañ moom benn nit ne moom mooy fixé saa yu ko neexee loolu ay xeex xeex la yoo xam ne sénégalais dañ cee war a taxaw pour ñu xeex ko benn yoon jëlee leen fi te jële bi mi ngi jaar ci élection du jaar ci coup d'état du jaar ci daaneel ab régime waaye day jaar ci élection yoo xam ne libre et transparente moo tax ñu ne même ki war a organiser élection yi beneen xeex la boo xam ne ñëpp nañ ci taxaw soit ñu nommé benn ministre de l'intérieur boo xam ne day def consensus comme ni ko général Cissé nekkee woon comme ni ko général Niang nekkee woon wala waaye pas nii ñu am nii nga xam ni kenn xamul lu mu doon wala nag mënuñu def loolu ñu créer benn organ indépendant autonom boo xam ne comme réew yu bëri ci àdduna mooy organiser élection yi Ousmane Sonko bu Pastef juróom-ñaari waxtu moo dem ba feggoog fukki minute ak benn donte njiit réew mi def na ay jéego yu takku ci wàllu mbay mi waaye nag alxames ji ñaar fukk fan ak ñaar jàpp ajjuma ñaar fukk fan ak ñett maanaam ëllëg ci at meenu ne eh, am na nag ay mbir yoo xam ne yii ñi nga xam ne ñoo di benn syndicat buy liggéey ci wàllu mbay mi di ay technicien ak xarala gi xarañ gi war a joxe nag données yi ñoom nee ñu duñ ko def dañuy bank seen i yoxo ndax dañoo am lu leen metti lool eh, fag faggu nag bokkit ci waa kër jëwriñ ji mi Samba Gaye mooy secrétaire ki nga xam ne mooy directeur de l' agriculture ak ministre boobu musa Baldé génne nañ ay kayit di jox ñi nga xam ne ñii ñooy opérateur yi nga xam ne ñoo war a joxe jiw ci àll bi di ko séddale pour wan na leen am ngeen digal pour yóbbu jiwu foofu ñu ngi leen di yëgal nag yéen baykat yi képp ku nekk sénégalais nga xam ne jiwu woowu nekkul jiwu certifié yi nga xam ne yi nii moom la euh, ndaw yi euh, ministère agriculture du saytu jiwu pour nga nekk jiwu ba fañ koy bayee lañ koy topp ba ca bi ñu génn benn bulletin analyse boo xam ne war na wax ne jiwu wi jiwu dugub la wala jiwu mboq la wala jiwu gerte la variété bi nangam la niveau bi nangam la taux de germination bi nangam la maanaam ci saxaar bi loolu yëpp dañ ko ci génn ci bulletin d'analyse mu mën a wax ne lii mën na jiw wala mënu jiw comme loolu amul nag képp kuñ jox kayit goo xam ne kii nii directeur de l'agriculture moo toog ca étage ba ca jam ñaajoo ca bureau bi climatisé mu toog bind kay kayitam ku ko neex na jiwu wa nekk Kaolack jiwu wa nekk Saraya jiwu wa euh, ko ko bay wala ko ko ko ko ko dajale certifié nañ ko mën na jiw loolu tegul ku ci yoon. article 46 bi lu mu wax. article bi moo dina ne ne képp koo xam ne kii nii yaa ngi bay jiw nekk ci Sénégal. nekk ci euh, réew yi nga xam ne ñoo ko wër muy CEDEAO mu réew féetee sowu jant daf ne lépp loo xam ne fi ñuy bayee jiw ak fi ñu koy euh, sayto ak fi ñu koy jaayee dafa war a aw benn yoon yoon boobu moo di ni képp koo xam ne war ngaa jox jiwu askan wi loo koo jox baykat yi da nga war a am bulletin d'analyse semence certifié bu wane ne yow mii kat am nga bulletin ba laboratoire ba nga xam ne bii moo la war a saytu nekk ca région ba nga ko bayee nekk ca gox ba nga ko bayee ndaw ya ko toppoon topp nañ ko ba jox la bulletin bi defee directeur agriculture ak ministère am soog laa mën a jox notification nga mën a jaay fépp fu la neex ci réewu Sénégal wala réew yi nga xam ne moo bokk CEDEAO bu boobaa sax mën nga ko jaay feneen bu du nekk bitim de bu fekkee am nga fa ay client waaye ñoom dañoo xotti article boobu xotti norme boobu nga xam ne Sénégal moom kese du ma moo ko moom dañoo jalgati meewaan euh, euh, mi nekk ci gox yee féeteeg boori Tiwaawoon askan wa ne ñu bëgguñu gisati ñu leen di yoreel seen ndox moomule ni wootaay gi ñu duppee ak waa waateeg na fa jóge ñoom daal ñoom nee ñu daal fi mu toll nii luy doy doy na sëkk daal Babacar Sow kuréelu meewaan jot na mer ba futt jëmale ko ci Aquatec doon daje ñoom ñooñee yëkkati ay kàddu di wax seenuk naqar ci teewaayu Aquatec bi nga xamee ne dafa nangu seen teen te yëguñu ko benn yoon anam bi ñu doon yoree ndox mi mësuta am tolof tolof boobu léegi def na lu toll ci ñaar fukki at askan woo xam ni nee nañu daal bëgguñu meewaan ni mu amee ci yeneen gox yi am tolof tolof ci wàllum yore lu ndox mi su suñu nemee ko ni Aquatec fépp fu mu jaar bàyyi na fa ay jafe-jafe Lamine Mbaye jëwriñ la ci meewaan jot na lu mat ñaar fukki at ak ñaar Mewane ma ngi dund ak forage bi sans problème te yaakaar naa ki nga xam ne moo ñu boole jaboote ñun ñëpp muy président Macky Sall matagul six mois wax na ne akuwaateb ay mbiram war nañ koo xoolaat waxaat ni dëkk bu mu dem te fekkul ñooñu forage ba am benn problème bala ñu koy jël nan waxtaan ak askan bi te yaakaar naa ne askan bi consommateurs yi ñoom ñoo ci ëpp solo parce que ñoom ñooy naan ñooy fay moo tax comme ñun ñu ni te jël nañ forage bi te àndul ak benn consensus waxtaanu ci ñun ci dara lu mooy dañ ñoo woo rek yëgal ñu ni Aquatech day jël forage ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg léegi nag li mu gudd mu gàtt mooy Aquatech dégage mais wan dëkk la boo xam ni bii askan wi nelawatuñu ba yandoor ndaxte tiit nañu lool ci teewaayu Aquatech suñu nemmeekoo ne ab ceetaan am na ci ba tax sax ñaar ci ñoom di Lamine mbay jëwriñ ji ak Ousseynou Ndiaye bokk ci ñu yore kàddu yi di ñaan askan wi bu kenn fay facture courant yi nga xamee ni andil nañ leen ko su mu jaar fépp bàyyiwu fa dara lu baax lu bon a bon la fa baax kon nag lu bon loolu du nangu mu nene ko fii ci Mewane jamais duñu ko nangu bi ñu topp nag ña koy xamal ne factures yi mu fi andi ñun parewul pour fay ko gan gu kenn bëggul parewul pour dëkk ak moom parce boo dëkkee ak moom la ca fekk yaa lor sa bopp kon ak lu mën a xew Aquatech dégage Mewane jot na wax na ni Aquatech dégage mille fois li ñu bëgg mooy Aquatech dégage facture yi fi nekk ku fayagul bul fay benn facture bu ko kenn jël waa ko waate kër gu ñuy ñëw bu jël facture yi loolu ñun ñoo ko engagé. Tivaouane Babacar Sow depuis Meouane pour Sud FM. ca Touba euh, maanaam le tëralin yu jëm ci wàllu lii tubaab bi duppee assainissement te mooy defaraat jooyantiyaat ba yëf yi gën a nekk loo xam ne lii daal day taaru lool tey tamit euh, xëy maanaam ndox yi ndox yi taw yeeg yu demee noonu nu fexe daal ba safara rot ci am na liggéey boobu doo na ko fa ca boobee tuuti sëy saafara yu wér ba léegi mënaguñ koo am ci jafe-jafe yi nga xam ni moom moo jëm ci wàllu assainissement ci biir Touba li nga xam ni moom mooy ndoxum taw yi ak ndox yu bon yi di wëy di lëjël ñi nga xam ni ñoom ñooy askan bi autorité yi mënuñu cee am saafara waaye yaakaar mën naa juddu ki ko xamle directeur général ONAS ak it jumtuwaay yi nga xam ni moom la ñu fas yéenee taxawal ginnaaw nag bu mu nemmeekoo ci fan yi la ñu génn ay bërëb yu bëri ci biir Touba taxawal li nga xam ni moom mooy plan directeur d'assainissement docteur Ababacar mbay di wax ni jumtukaay bu am solo la. man suñ ko xayma dem na 171 milliards mais de bi biñ koy xayma jusqu'en 2030 mais ñu xoolee première phase bi première phase bi liñ ci réalisé mu ngi nekk à peu près 20 pour cent si on fait les deux à la fois donc cela veut dire que des na donc ci première phase bi nga xam ni moom la ñu war a réaliser. nit ci ci la ñuy réaliser li ñuy wax le projet des dix parce que projet des dix villes yi Touba ci bénéficier wu au niveau projet des dix villes quatre pour cent évidemment quatre vingt cinq pour cent a été réalisé en termes de travaux. Euh, il ne faut pas li nga xam ne mooy PDA mooy dem ba deux mille ak li nga xam ne mooy projet des dix villes. moom la ñu réalise actuellement te mu bokk ci première phase PDA bi. organisation Touba ca kanam nag moom it amal liggéey bu am solo ci fànn boobu ci ñaar fukki point yi nga xam ne moom la ñu xayma woon fukki yi ak juróom-ñaar defar nañ ko ba mu jag ci ndaje mi nga xam ne dañ ko doon amal di partager li nga xam ne moom mooy plan directeur d'assainissement bi responsable yi nga xam ni yépp ñoo ci war a dugal seen loxo nee ñu taxaw nañu temm gouverneur région bu jox bell gox gi mbay ni jiite woon ndaje moomu nee na daal PDA bi dafa nekk loo xam ni ku nekk war nga koo def sa moomeel ki nga moo teewaloon ci ndaje mi xalif général des mourides di sëriñ Ousmane Mbacké moom rafetlu liggéey bi di wax ni ndax sëriñ Mountakha sax moom li mu bëggoon moom mooy ñu taxawal benn cadre de concertation de suivi et d'évaluation tuuti say Mbàkke su defam tuuti ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax soxna Maria foofu la ñuy daal di taxawal. jërëjëf Fatou Maodo Faye ñu jox la dig daje incha allah ci euh, juróom-ñetti waxtu ngir yeneen ci xibaar ci yaatal exactement 18 minutes après 7 heures merci de